bi wax ne li séeréer bi waxoon caaxaan faaxe lii nga xamante ne xew na ci réew mi te ñépp teg ci seeni bët mooy ab càcc bu ñu organiser au plus haut sommet de l'État ci biir podoor ci biir Ranérou ak ci biir Kanel sàcc goo xamante ne ñi ngi ko jëmale ci gën a yokkal ay baat Benno Bokk Yaakaar te ñëpp teg nañ ci seeni bët ma wax ne kenn du nangu ci réew mi que volonté populaire bi nga xamante ne moo exprimé wu au soir du 31 juillet 2022 peuple bi demandé que changement dafa war a am jaare fa tamit leeralaale ne que troisième mandat kenn ñemeetu ko laaj ci réew mi loolu le ñëpp a war a xeex comme benn say pour loolu lay xew ci réew mi man nag daan noppi ndax yaakaar ne bis a ngi ñëw yëf yi dox mais dafa mel ni président de la république ak soxnaam ak yi njabootam dañu mel dañu ma singali lépp lu ma yëg ci réew mi ñu ngi ciy bëgg di ko xajamal li ma wax dafa leer dama wax ca njëlbeen. ma ne suñu yàlla mayee benn député wax naa ko ba ñëpp dégg ko député bi ci opposition bi la jëm wax bi nag toq seeni nopp moo tax tey ji ñu profito éliminer ma dérangé wu ma li am solo mooy damay woo toute l'opposition sénégalaise bàyyiwuma kenn ñu ànd benn say ngir taxaw temb que lii ñu bëgg xewal ci réew mi te proclamer ay résultats provisoirement ñu fexe ba loolu le kenn du ko confirmer ci réew mi loolu mooy benn ñaareel ba ñu fexe tamit ba kii di président Macky mu comprendre que amul droit moom former un nouveau gouvernement parce qu'il n'a plus de majorité dans ce pays la deuxième chose amul droit def benn calcul mathématique wala benn calcul arithmétique wala benn calcul politique pour mun a am présidence su assemblée nationale ou bien di former bureau bi loolu kenn waru ko nangu ci réew mi moo tax ñu wax ne maslaha dafa war a jeex douze ans yoo dix ans yoo xamante ne mi ngi bundu xatal nit ñi bàyyiwul kenn man mu tàmbalee ci sama kaso sans procès ba léegi ak yeneen yoo xam ne xew na ci man xanaa léegi rek laa bàyyi su ma dematee aéroport kenn ma fuye mais fuye nañ ma futti sama yére ba tàyyi ak yeneen yu ñu ma def ci réew mi ma muñ yëpp mais jot na nag yii nga xamante ni daf ko nekkee woon ci ñi féetewoo opposition bi ñëpp taxaw amatu du affaire coalition fu ñu toll nii affaire survie la te peuple bi ñëpp war a taxaw la des Desmond Tutu waxoon nee na am en temps d'injustice képp ku ci noppi da nga ànd ca loolu ñu doxal ci réew ma te kenn waratu ci ànd du kilifa diine du kilifa aada du njaboot gi du sénégalais foo mën a ne ci biir réew mi comme ci bitim réew kenn waratul ànd ñëpp a war a taxaw temm ne Macky sàll lii nga xewal ci réew mi jeex na tey jii soo leen seetloo bu baax il est minoritaire dans le Sénégal partout nag foo dem ci réew mi il minoritaire message boobu ñu ko yónnee li ci am solo dëgg mooy que mu mun ko décrypter su ko décrypter wul ñun opposition bi ñu taxaw temm àndandoo mu décrypter ce message avant que muy trop ci réew mi ndax bras de fer su ko yëkkatee moom du ci amal ci ndam parce que amatul majorité ci réew mi maslaha moo war a jeex ba ñëpp comprendre li may ñaan nag sama mbokk yi nekk ci opposition mooy nañu wóolonte nañu yéenante nanu ànd pour benn mission mooy sauver le Sénégal génne ko ci guuta bi mu nekk àndandoo indi ay solution bu ñu génnee sénégalais yépp ci ndóol lii moo des ci wax bi lii moo des ci réew mi lii moo nar a nekk cëslaayu le préambule de la constitution un engagement patriotique maa ngi sant ñépp ñuy voteel ba ñu ca tollee waaye daal li am solo dëgg mooy ne Sénégal jot na kenn ku ne ci ñun am taxawaay pour sauver notre pays maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.